allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñi ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi di suñu mbokk technicien bi di Léopold Mendy mbokk yi ñu sant yàlla buur bi tabaraka wa julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sant yàlla moom mi ñu may ñu fekke bés bi buur yàlla tabaraka wa di ñu baaxee ci téere bi ne dafa bokk ci kawtifam ya nekk fa moom mu doon ay kawtif ya nga xamante ne bu ñu ko waxutoon ni konte woon kenn du ko xam ci doomu aadama yi waaye amul kenn ku ñu ko mën a wax tamit waaye mu bëgg a delloo xelu doomu aadama bi woon ko ne la nga nekke woon ci waxtu su néew ci ginnaaw man la du scientifique bala ko jox du buxaaba ba nga defe ne ci moom la nekk ba tax na moo la ko war a jox du kenn kala ka war a mën a jox ku dut man yàlla buur bi tabaraka wa taala man rekk maa la ko mën a jox moo tax mu ne ñu bokkoon na ci sama xéewal ya ma yore fa man yàlla bokk na na ci la ma leen xéewalal kenn na munu koo bi ko dajal waaye naa leen baaxee lenn ci xéewal yooyu te ma di ko dottil su ko defee doomu aadama bi xam ne ndekete la mu nekkee xéewal la ba buur yàlla yore te moom la ko jagleel di doomu aadama bi ba tax na buur bi tabaraka wa taala di la wax ci suratu ruum ayatihi manaamukum billeyl wannahaar wabtigaaukum min fadlihi inna fi dalika la ayatin li qawmin yasmaun moo ne buur yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg a wax ak yow doomu aadama bi nga xam ne amaana danga wékk xéewal ba nga nekkee ci keneen walla ci leneen orko ci kooku nga ko wékk xamu ci dara mënu ci dara te amul dara lam ci man walla lam ci xam ba tax na buur yàlla bëggalaa won ne kooku nga defe ne moo la xéewalal la nga nekkee nii walla moo la jox xéewal bi ni mel déedéet du kooku de mbir yi du kenn man mii la moo tax mu ne la wa min ayaatihi dafa bokk ci xéewal yama yore man yàlla yow doomu aadama bi nanga nga bàyyi sa xel yàlla nee na wa min ayaatihi bokk na ci xéewal ya nekk fa moom bokk na kawtéef ya nekk fa moom te mu di ko jox doomu aadama bi mu doon xéewal fa moom ko bil leyl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi kon am na benn jëf ba doomu aadama yi di jëf mu tudd nelaw waaye jamono bañ koy def tamit jamono bi tudd guddi kon nañu leen dem xool ana lan mooy jëf ba doomu aadama yi di jëf te mu tudd nelaw la fa nekk ci xéewal la fa nekk ci kawtéef képp ku ko bëgg a xam na nga dem xool kay nelaw ak kudut nelaw seen anamu wér-gu-yaram du doon benn seen anamu fonctionnement ci pinc bi du doon benn kii daldi kay nelaw keneen ki du kuy nelaw ñooñu bu ñu xoolee seen fonctionnement ci pinc bi dinañu gis ne du doon benn kañu war a mën gis ne moo ànd ak dal muy kay nelaw waaye kadut nelaw leneen lu ñuy gis ci moom dinañ ko yërëm bi ñu ko joxoñal ne ko demal ci këru docteur ñu xool la tax doo nelaw su ko defee amaana ñoom ñu mun ci dara kon nelaw da di kawtéef ba yàlla wàccel doomu aadama bi mu nekk xéewal ci dundam waaye jamono buñ koy def tamit yàlla wax ñu jamono jooju moo tax mu ne ñu bil layl ko nelaw ba ngeen di nelaw kañ bil layli ci guddi kon bu ñu demee xool guddi tamit dinañ fa gis mu doon benn climat woo xamante ne keneen ku dul yàlla ma ñu ko installer kenn mënu ko kenn mënuta ñoddi guddi ba mu tàbbi te waxtoom jotagul kenn mënu fi ñodd guddi ba mu dugg si te waxtu bañ ko digal ne waxtu woowu la war a fonctionner waxtu bi jotagul ki koy ese nanka géem du sotti waaw musu ñoo dégg ne guddi bi dugg si na te waxtu ba jotagul musu ñoo dégg ne guddi bi tarde na waxtu bu mu daan ñëw tardé na déedéet musuñu koo dégg kon la yàlla wax ne du dagan guddi di njëkkee bëccëg wala bëccëg di njëkke guddi te ñoom ñëpp orientation bañ leen orienté doxalin bañ leen rëddal liñ bañ leen xàllil fa la ñëpp tënku di dox moo tax mu ne ci suratu yaasin laa yambaxi chamsu an yudrikal kamar wala leylum saabiqu nahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun ah. la chamsu yambaxi laha an tudrikal kamar wala leylum saabiqu nahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun ah, du dagan waaw ah, jant bi di njëkkee weer bi wala di jiitu jant te guddig bëccëg duñu musa dabante te ñoom ñëpp fu ñu leen xàllil ne foofu ngeen war a jaar falañ lañ tënk di fa aw di fa jaar kon lii kattanu suñu borom la moo tax mu ne ñu wa min ayatihi bokk na ci kawteefam yi maanaam moo kom nelaw bi ngeen di def bi léegi ci guddi bokk na ci kawteefam yi moom yàlla wan ak bëccëg bi nga xamante ne projecteuru lumière jant bi ak éclairage àddina danan tey ne fang seen kaw nag waaw ko defee kenn ku nekk am courage bu toll ni dangay ngay a xëy dem uti la ngay dundee moo tax mu ne ñu waxtu yu guddi nelaw la waaye waxtu yu bëccëg wabtigaukum min fadlihi waxtu yu bëccëg mooy waxtu yi kër-kër yi waxtu yi liggéey yi waxtu yi xëy yi kay dem fa nga war a fàggoo la ngay dunde demal bëccëg loolu la fi tax a nekk mu jox la éclairage bu toll ni danga war a xëy dem liggéey ba keroog jant bi di sox yàlla ne inna fi daalika la ma leen tegtal nii mu ngi ci ayatin kawtif yoo xamante ne li qawmin yasmaun ña ko wara mëna dégg mooy ñay déglu la leen alquran di nettali kon ñu gis ne nelaw kawtif la ba nekk fa yàlla waaye mu doon yërmande ak xéwal ba ñu yàlla wàccal jalla waala ba tax na yonent bi nee na képp ku yàlla wërsëgal bi nga yeew ci nelaw boobu da nga war a sant yàlla nekkoo ko mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yi yow dong yaa ko yeyo yow dong yaa leen moom aw ndax yaay buur bi nga xamante ne yaa ma dundal gannaaw bi nga ma faate ci nelaw bu ndaw te tamit bu dund bi jeexee ci yow dong lañuy ñuy dellu fa yow yàlla mooy suñu dellukaay bu mag moo tax bi léegi bu ñu demee xool ci weneen aaya ba nekk ci suuratul zumar dinañ fa fekk buur yàlla mu di wax doomu aadama bi ne ko dafa am capacité ak sañ-sañ ak kattan ak man-man ba yàlla yore moo tax mu ne allahu mu jël ismul jalal jël turam bu sell bi ni bi di allah waxut malaaka moo leen di rey waxut malaaka moo leen di faat fii tuuram ci jëmmam la jël am na beneen aaya bu mu ne yatawaffaakum malikul mawt waaw dee bu leen dikkalee malikul mawt mooy ñëw exécuter mission bi faat leen diggintaan waaye fii def ne allahu yàlla yatawaffal anfusa mooy faat bépp bakkan bay waaja dee bay waaja suubu ci dee bu ndaw te mooy nelaw moo tax mu ne allahu yàlla moo yore kattan bi ni mel anfusa mooy faat bépp bakkan xiina mawtiha jamono bu muy soobu ci dee bu ndaw te muy nelaw waaye ci biir nelaw boobu mu doon dee bu ndaw woowu mu ne ñu walliti lam tamut fii manaamiha bakken joo xamante ne dogaluma ci moom mu faatu dee dëggintaan ci jamono ba muy nelaw dama koy bàyyi mu nelaw nelaw bu yamamaay kooku du nelaw nelaw bu xuut waaye du ñàkk nelaw nelaw ba ma koy roof nelaw ba ma koy baaxee virus nelaw ba ma koy jox mooy nelawu jayaxu nelawu singim mu doon nelaw bu neex waaw yàlla mu ñuy wax ayatul kursi anamu nelawin wóobu du ko laal moom yàlla ah sakantuma muy nelaw nelawu dëggintaan moo tax mu ne ñu laa taaxuduhu sinatun wala nawmu ci ayatul kursi fii daf ñu ne nelaw bu yemamaay woowu kum koy baaxee mooy ki mu dogal ci moom mu war a nelaw nelaw bu diggi waaye mu ne ñu ba léegi ci kattanam bokk na ci ñaareelu position ba muy jëflanteel ñaareelu bakken bi mu ne ñu fa yumsiku leti qada alayha al mawt léegi bokk na ci kattanam moom buur bi tabaraka wa taala mooy tée mooy récupérer mooy faat bakken joo xamante ne namm na ci bakken jooju dee diggintaan ci nelaw boobu bakken yi suubu waaye ñetteelu puissance ba mu yore ci bakken ya muy jëflanteel jamono bu bakken yépp sóobu babbeeku dugg ci dee bu ndaw di nelaw mu ne ñu ñetteelu bakken bi wa yurusilul uxra ila ajalin musamma ñetteelu bakken bi nag moo koy delloo ci jëmm ba mu bàyyee ko woon ba dikk ba mu dexalanteeg bakken boobu bu àpp bi jotee mu daal ko jëlee ci kaw suuf si waaye mu ne yow doomu aadama bi inna fi daalika lii ma la nii li ma la joxoñal nii li ma lay wax nii kawteef ba ca nekk du ñëpp a ko mun a xalaat du ñëpp a ko mun a gis ñàkk a a gis mooy li xawmin aw nit ñi nga xamante ni yatafakkaruun ñooñu ñoy nangoo xelaat la yàlla joxoñ ci kawtéefam ay la alquran nettali ci kawtéefu yàlla waaye la yenent bi sallallahu alayhi wa sallama mu doon la yenent bi jàngale ci njàngalem yu matali moo tax mu ne la kon yow doomu aadama bi saa yoo yeewoo ci nelaw na nga sant yàlla waaw na nga sant yàlla buur bi nga xamante ne mooy ki la may occasion ba nga génne ci nelaw bi nga xamante ne bokk nga ci ñi yàlla delloo seeni ruux ñu kontinu di dund mbokk yi yal na yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot yàlla buur bi tabaraka wa dafa sopp saasu ne ñi fàttalante suñu biir la nga xamante ne mooy la mu sopp te mu doon la mu gërëm ba tax na ñun xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla mu ñuy baaxee ci suuratul aala mu ne suñu yenentu bi waaye mu doon aaya boo xamante ne keneen ku dut bi te yàlla nattu la nga taxawee taxawaay bi ni mel xataa bu dee doonoo yenent waaye digal yenentu bi moom la la digal gannaaw bu la nattoo nga nekk ki mu baaxee nga war a wax ak askan bi ndax yonent bi la ne fa dakkir in nafaati dikra sa yadakkaru man yaxsha na nanga fàttali dina fàttaliku képp ku bàyyi xel yàlla ci fàttali ba nga koy fàttali waaw képp ku bàyyi xel yàlla dina fàttaliku ca la nga koy fàttali ci la ko yàlla sant waaye nan kay defee gannaaw boo ko koy fàttalee su ko defee dina fàttale ko kon yow imaam bi yow jàngakata alquran yow mi yàlla baaxee fasaaxatul lisaan yow mi yàlla baaxee nga xàmmee astuut waaye nag na nga jël sa loole yàlla baaxee la nga di ko leeralal nit ñi ci sa kémtalay kattan la la yàlla baaxe ci élégance ci wax ju jub ak wax ju nit ñi mën a dégg la yàlla nattoo su ko defee nit a ngi nii dina mën a fàttaleku dina war a mën a njariñu kiy bàyyi xel yàlla ci doxalinam ak ci dundinam su ko defee yàlla neena kooku mooy koo xamante ne moo takkoo ko ragal yàlla kooku mooy koo xamante ne fàttali ba nga koy fàttali dina ko njëriñ ba tax na bu ubbee rajom mu dégg ñu naan qaala allah wa qaala rasul dina diglu la yàlla di wax ak la yenentu bi di digle sallallahu alayhi wa waaye mooy koo xamante ne bu toogee ci kanamu tele ba nekk ak moom ci néegam bu jàppee fo ñu naan yàlla nee na yenentu bi nee na dina taxaw diglu amaana mu jëlee fa la kay njëriñ amaana mu fàttaleku la mu fàtte woon amaana mu déggee fa la mu déggutoon loolu mooy lañu fi tax a bàyyi loolu mooy lañu yàlla sant loolu mooy lañu yàlla yërëme waaye buur yàlla ne wa yatajannabuhal asqa ku texdi ku repp ku nara tabbi ci mbugalu yàlla ëllëg bis kooku mooy kay sore fàttali bay jóge ko ci alquran waaye kooku mooy kuy dummóoyu kuy bañ a diglu fàttaliku buy jóge ko ci njàngale yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ñu melokaanu kooku keroog bés pénc mooy alladi yasla naaral kubra mooy kuy tabbi ci safara su mag soo xamante nekkinam bi foofu mooy nekkin bu doy waar yàlla nañu ñu summa laa yamuutu fiiha wala yaxya déet mu doon ku fay dee waaye du fa doon ku ku fay dund nekkinam bi foofu mu doon nekkin bu doy waar ba tax na yàlla continuer ci aaya bi mooy mu ne ñu kooku mooy koo xamante ne repp na la ko tax dugal ci mbugal bi mooy daa sore lépp lu ñu wara a fàttelanteeg moom daa nangoo dumóoyu daa bañ a déglu lépp lu koy fàttali ci diine ba yonentu bi andi jëlee ko fa yàlla looloo tax keroog bés penc yàlla toroxal ko dugal ko ci mbugal ba mu nekkee kon ñàkk déglu fàttali bay tukkeekoo ci alquran ak njàngale yonentu bi dina tax tàbbil nit ki ci mbugalu yàlla waaye nangoo jël sa temps di déglu fàttali ba jóge ko ci alquran ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina la taxa am ngir mande yàlla dina la tax a bokk ci ña yàlla di wërsëgal ëllëg bis pinc ñu doon ña taxi ñi ndax xeet yi ñu jiitu woon bu ñu demee xool ca suuratul maida dinañu gis ndeke am na xeet yi ñu jiitu woon la tax yàlla mere leen la tax yàlla toroxal leen la tax yàlla doyadeel leen bokk na ci ñàkk déglu fàttali baleen seen yonente yeeg seen nit ñu baax ñi di fàttali la tukkeekoo fa yàlla ak la yàlla jox seen yonente yooyu ngir ñu baaxee ko seen askan moo tax bu ñu demee xool ci sotul maayida dañ fa fekk buur yàlla ne yonent bi ci suñu téere bu mag bi di alquranul karim mu ne ko lu'ina alladina kafaru min bani israil ala lisani daawuda wa isa bun maryam dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu laa yatanaahawna an almunkarin faaluuh la bi'sa ma kaanu yafaaluun suratul maida mbokk yi aaya bi buur yàlla tabaraka wa taala daf ne yonent bi ne yàq sa xeet bu leen mel ni waa banu israil ña seeni yonent rëbb ña seeni yonent ñaan yàlla yàlla nga sooreel xeet wi ci sa ak sa yërmande yàq say xeet bu leen mel noonu moo li ko yóbbee la yóbbee waa banu israil ba seeni yonent yi rëbb leen mooy kaanu laa yatanaahuuna anil munkar faaluhu yàlla ne yonent bi na lu'ina alladina kafaru rëbb nañu ña weddi min bani israil ci waa banu israil ala lisaani daawud wa isa bun maryam ci ndigalu yonenti yàlla daawud ak ndigalu yonenti yàlla isa waaw yonenti yàlla daawud rëbb na waa banu israil ci làmmiñam gannaaw buñ ko weddee ñu baña tënk ci lam leen andil mu jëlee ko fa yàlla waaye yonent yàlla Isaa tamit rëbb na waa banu Israil ci làmmiñam ci gannaaw ba ñu bañee tënk seen bopp ci laleen leen yonent yàlla Isaa dëgtal te mu jëlee ko fa moo tax mu ne loo ina alladina kafaru rëbb nañu ñaan nañu yàlla ngir yàlla sorel leen ci yërmandem ñan alladina mooy gaa yi nga xamante ne kafaru dañoo weddi min bani israil ci waa banu israil ala lisaani daawuda ci làmmeñi yonentu ba leen dikkee te mu tudd daawuda wa bun mariam ba léegi isa bun mariam isa di doomu mariam rëbb waa banu israil ci làmmeñam waaw la loolu zaalika naka ñoom de bi ma asaw la tax ñu rëbb leen dañoo nekkoon di moy wa kaanu ñu nekk ñoo xamante ne yaataduun dañoo nekk di ëppal ci lu ñaaw lañu ñu nekkee woon moo ne lu ñaaw loolu ñu nekkee mooy lan kaanu nekkoon nañ laa yatanahawna daawuñu terewante anil karin faalu lu ñaaw lañu nekkee di ko jëf waaw kon ñàkk tere lu ñaaw ci pénc bi day wàcce merum yàlla ñàkk teralu ñaaw ci pénc bi day tax yàlla jéppi waa pénc woowee ñàkk teralu bon ci pénc bi day tax yàlla sip waa pénc woowee moo tax mu ne kaanu dañoo nekkoon laa yatanaahaw na daawuñu tere anil munkarin faalu daawuñu tere wante lu ñaaw lañu nekkee woon di ko jëf yàlla ne seen melokaan mooy melokaan bu yiis moo tax mu ne ñu la bisa ma kaanu yafaluun ak a ñaaw ak a yiis ak bon lañu nekkee woon di ko jëf kon message bi boo gisee buur yàlla tabaraka wa taala ñu ko suñu alquran ndaxte dafa bëgg yenentu bi bañ a doon ak xeetam ni waa banu israil meloon kon moo tax yonent bi nañu ci xadis man raa minkum munkaran fal yugayiruhu bi yadihi fa in lam yastati bi lisaanihi fa in lam yastati bi qalbihi wa dalika adaful iman sallallahu alayhi wa daf ñu ne képp ku gis lu ci pénc bi na ko dindi ci loxom na jëfandikoo kattan bi loolu deñ bu dee mënu ko na ko wax ba mu deñ na ko dindi ak làmmiñam bu ko mënul bi léegi na ko méttitlu ci xolam waaye méttitlu woobu mu di ko méttitlu ci xolam sallallahu alayhi wa sallam nañu loolu mooy la nga xamante ne mooy la néew ci ngëm yàlla moo tax xadiisu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ demee xool dinañu gis an abi saidin alxudri radiallahu anhu abi saidin alxudri radiallahu anhu nee na an abi saidin alxudri radiallahu anhu nee na abi saidin alxudri radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm moo ñu wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yenent bi sallallahu alayhi wa ñu baaxee ne ñu man ra'a minkum munkaran képp ku gis lu normaalut ci pénc bi fal yughayyiruhu nanga ko soppi bi yadihi ak sa loxo jëlal sa kàttan nanga ko soppi ak say loxo la mel ni jamono ji ñu toll ni lañu seen ci tali muy xew nit ñi di am loraange ju toll ni naam donte tali am nañu illa am nañu défaut waaye sofóor ya nekk ci tali di dawal ñoom am nañ si part part de responsabilité waaw sofóor ya nekk di dawal ci tali yi ñoom am nañ la gàll seeni loos ci responsable boobu kon nguur dafa war a jël kàttanam defar tali waaye mu teg kàttanam ci sofóor yoo xamante ne dañuy dawal anam bu mengoowul ak téralenu code de nee na loolu nguur moo ko man waaw bu ko mënut a génnee nag ak loxoom fa in yastati fa bi lisaanihi waaw ki mënut a lu normalut loolu ci pénc bi ak doolem ak loxoom na ko dindi ak làmmiñam lu mel ni ñun ak imaam yeeg asaatisa yi lañu yàlla nattoo mooy ñu toog ci tele yeeg rajo yi ñu wili pande ko wax ko ba mu deñ kon ñun loolu mooy suñu ruur ñu fàttali nit ñi ñu joxe conséquence la si nekk bu deñee alhamdulillah bu deñul tamit fekk ñun wax nañ suñu ruur kon la normalul ci penc bi ndegem yàlla daa natt imaam yeeg satise yeeg journaliste yi ñuy wax ba mu deñ kon ñun nañ leen jël suñu rôle ñu exécuter ko yàlla bu ko dindee alhamdulillah bu fekkente tamit fekk ñun jëflante nañ suñu responsabilité comme na ko yonentu bi baaxee sala sallam mu ne ñu ki mënut lii fa in lam yastati fa bi qalbihi bu ko mënut a dind ak loxoom ak làmmiñam na ko méttitlu ci xolam waaye xol boobu nga di ko méttatlu mu ne ñu wa dalika adaful iman nee nañu loolu mooy ngëm yàlla bu gën a faible ci ngëm yàlla xadis bi Buxaari aw muslim moo ko solo mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa mu may ñu dégg ak topp ñi ñaan yàlla suñu borom mu may ñu dégg ak topp lu jub ci kàddu gi ñu santee ko yàlla lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu di jéggalu sëriñ seeg doomu soxna yi incha allah nasaluka allahumma an tajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli zambin fastaghfiruhu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu